asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu liy xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annual dinner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawara nee naa la imam Mountakha Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ca Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy woote muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi la nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha Sakho bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne ni tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da nga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le vingt trois décembre fii ci Staten Island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 wax na ne xaddathana abdullahi abdullahi nettali nañu qaala xaddathana abu daawud mu ne abu daawud nettali nañu qaala xaddathana abdurrahmani ibnu abi zinaadi mu ne abdurrahman doomi abu zinaad nettali nañu an abihi jëlee ci baayam ki abu zinaad an abana bni uthman jëlee ci aban doomi sayidna uthman qaala mu ne samictu dégg naa uthman uthman bin affan yal na yàlla gërëm ko moo ki mbokkam ci saxaaba ak ñiñ jiital ci tuddu yëpp ci riwaaya bile qaala sayidna uthman mu ne samictu nabiya dégg naa suñ sang yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu muy wax man qaala ku wax sabaxa kulli yawmin ci subaay bés ne wa masaa kulli laylatin ak ngoonu guddi gune halaathan halaathan ñetti yoon yoon ki wax lii may bëgg a wax ñetti yoon ci suba ñetti yoon ci ngoon bismillahi alladi laa yadurru maca ismihi shay'un fi l wala fi lsamaai wa huwa alsamiu alalim ku wax bismillahi ci turu buur yàlla alladi mi nga xam ne laa yadurru du lor maca ismihi ànd ak turam shay'un dara fi lardi moo xam ci suuf la wala fi samaayi du caagan ci asamaan oo moom buur yàlla samiu moom kott mooy aji dégg ji al alimu moom kott mooy aji xam ji ku wax li lam yadurrahu du ko mën a lor shay'un tus képp ku wax li ngoon ñetti yoon suba ngoon bismillahi alladi laa yadurru maca smihi shay'un fi lardi wala fi samaai wa huwa samiu alalim yonentu nee na dara du la dara du mën a lor ki wax loolu ëpp na sàggane waaw waa defee musluwaay yëpp musluwaayu yonentu yi sallallahu alayhi wa sallam moo ca gën ndax yàlla koy waxee moo tax euh, aban mi nettali xadis bi nattu dal ko waaye di ko xool rek mu ne ko fàtte fàtte li ma soloo ci sama baay mu soloo ko ci Ousmane tey moo ma yóbboo li xam nga yàlla bu la naree nattu daf lay fàtteloo ne ko yàlla ma fàtteloo ndax daf ma naroon nattoo lii kon nag yàlla bu ñu yàlla fàtteloo ñaan gi ak ñaan yu mel te yàlla bu ñu yàlla nattoo feebar jàngoro ñàkk lor ci biir ak loru biti moo xam ci kaw la ci suuf ci àdduna wala ci àllaaxira nañ yàlla musal ci xeeti yooyu yëpp ci lor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 muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy diine dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten ayleen ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci mun Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag ji ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla imam Mountakha Sakho bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale dal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne ni tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da nga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island